xam nga ñan nga war a bëgg yaw jullit bi ndekete jullit warta doon koo xam ne day boyal xolam rekk ku ñëw mu dugal ko ci déedéet xol moom doo ko bàyyi rek mu mel ni kaar ku ñëw nga yab ko déedéet ndax lu tax loolu al mar'u maa man ahabba nit ak ki mu bëgg ëllëg ñooy bokk fa ñuy nekk kon loolu danga ciy déggee ni booy bëgg bëggal ku baax ndax àndandoo su dee lu baax la pour ka ngay àndal nga topp ko ca day yomb àndandoo bu baax pour mu xëcc la ci lu baax la mu nekk dafay yomb waaye bu nekkee ci safaan yi pour mu xëcc la ci safaan ba mu nekk dafay yomb yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki ak ka mu bëgg mooy tey yow ki nga bëgg ëllëg yéenay bokk fi ngeen nekk loolu moo tax nag ab jullit buy bëgg mu war a bëgg ku baax ndax danga naan xol la moomuma ko nga bëgg koo xam ne ku bon la def ko bon la amul lenn loo xam ne da coo tënku ci ay la yàlla déedéet subhanallah tey ay ñaata jigéen ñi ngi futteeku ñii di watu ñii di def yaramu neen ñii di sol yenn yére yi lan moo leen ko yóbbee dafa am ku ñu bëgg di ko roy gis nga bëgg nit ak roy ko kon li muy yóbbee nit ki ah bu ñu àndee dee ca loolu ëllëg ka ñu bëggoon fa mu nekk rek foofu lañ koy fekk ji ndeysaan waaye di laaj tey ay ñaata nit ñoo baax ñoo jub ñooy góor góorlu ñoo tënku seen diine ngir tamit ñoom it macha allah dafa am ñu ñu bëgg di leen roy muy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabaam moo tax it ëllëg hmm, fu ñu nekk rek ñu dugg fa ànd ak ñoom kon ndekete bëgg lu foor la du ay fo du ay caaxaan ka nga bëgg war bàyyee xel ki mu doon ka nga bëgg it war ngaa bàyyee xel lan mooy ay bëgg-bëggam